di ko jaarale ci seen site bi di tudd seen acte 44 di leen wax ne alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant ci magal bi di wax ne rabbi ashrih li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñu ngi nuyu ñëpp ci bis bu tedd bu mag bi di magal touba gi 2021 di leen wax ne alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Euh, sëñ Ismaïla borom léppay baax euh, comme ni ñu ko faral di waxee mu mel da ngay yëngu ci wàllum ñaan defe naa ñëpp ràññe nañ la xam nañ la ci bu baax a baax euh, waaye tey mën naa ne loolu taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy màggal Tuubaa bi ñu gis biñ ñëwee gis nañ fi ngay séddale lu mel ni ndawal bu bari nga di ko nga di ko nga di ko séddale di di rey ay gideem ay nag di ko def addiya ngi di ko jox mbokk julli ñi nga xam ne ñu ngi ci màggal gi social boobu lan nga ñu mën a leeral maanaam loolu soo ko gisee dañoo nekk ay taalibe jaar si dara alquranul karim suñu wajur go do ñu jangal ñu di ko wax Serigne Mor Kañi moo nekkoon fii nekkoon kër soxna Mbène fallu Mbacke soxna Mbène fallu Mbacke mom moko ko andi won Touba jox ko dara alquranul karim mom fa jógee la nekk ñu ñu and ci si ci si ji Serigne Mor Kañi moomu nag suñu wajur nekkatu fi waa sëriñam bi nga xamanteni ni si la sukk jeblu mom lañu tuddé Serigne Mor sa baxum Serigne Mor Fass fi jógee Serigne Modou Bakhoum fi ne suñ mutu baaxum làqu na fa nii yàlla na ko yàlla yërëm moom nag moom nañ ñuy dàkkantale ñu dañu wooyee borom lépp ay baax si tegtal yi ni ñu koy wooyee rek waaye lépp suñu borom la boo gisee social yi ñu ñu koy def dañoo nekkoon ci daaray alquran màgg ci yaru ci xam adduna bi nu muy tëddee mbir yi nu muy tëddee rek kon nag bu ñu demee ba suñu tubaa defaral ñu lii ndax ñun amuñu mënuñu lépp suñu tubaa la ak Cheikh Ibra moo tax lépp loo xamante ni ñu ngi koy def rek dara waralu ko lu may suñ tubaa ndax eh, suñu lepp dal Sëñ touba la te lip lu ñuy def dañu koy programmer bu magal gi ñëwé rek mom lañuy ñuy bu sa bu magal gi jallé dañuy lip ba déwén rek eh, lepp lu ñu am mo xam bay la xar la nak la gilem la suñu ko mané dañ koy def séddale ko jamm yalla lepp rek ngir jëmi ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul wa ndax mo suñu lepp te amuñu lenn lu may mom motax eh, ci walu li nga xamni sax ñu ngi faral di yëngatu muy jang ak jangale ko Euh, suñu Omar Bay mi moom a nekkal si daara ji ñetti yeeg eh, jamono ji moom eh, tënk ba loolu du ma ne ne waaye am na ñu nekk si daara yi alxuraan ji di fi jàng euh, ñi nekk si xam-xam bi ñun nag eh, li ñu yàlla nattoo nga xam ne mooy jëflanteeg doomu aadama yi moo tax daal gis nga ko rek xam nga ñun dañuy nekk taalibe yi Sëriñ Tuubaa yoo xamante ni daal si loolu daal ah, lañuy yëngatu rek si loolu bu buñu ñëwee ci ci social bi nga xam ne yaa ngi koy def mu mel ne nekkul loo xam ne nekk na loo xam ne yomb na yombul ndax màggal Tuuba euh, ñaari euh, lu waay am rek da koy jëmale andi ci ci sa kër euh, yow nga nga rey ay nekk ay gilem di ko di ko di ko jox askan wi social boobu noonu loolu kañ nga ko commencé def. loolu yàgg na ndax léegi mu mat si sax juróom-ñaari at wala juróomi at juróom-ñaari at yi daal man na waaye nag day day day gën yaatu an mu jot ñu gën koo yaatal. Euh, bu ñu defan benn bu dewee déwénee ñu def ñaar suñ defan ñaar bu dewee déwénee ñu def ñett li nga xam ñu ngi koy jëflante ak jaami yàlla yi ñu di ñu ko jox muy suñu yelleef moom lañuy jëlaat dañoo xam ne màggal Tuubaa yaatu na te diis na te metti na te kenn ku nekk euh, xëy na di nga même bu la kenn joxu di du tee du waaw di nga am am na sax ñoo xam ne moom bisu màggal gi dinañ fexe ba li waral ak ñoom ñëpp dinañ ko am boo gisee bu ñu suba la màggal li gën a yaatu ñu di ko def day am ñoo xamante ni seen day ñëw si bis bi si bis bu ñuy suba la màggal war def bu suba la màggal si bisu magal bi après màggal loolu nag day xaw a di si ñenn ñi te ñun nekkoon nañu ay taalibe di gis eh, jamono ji ni mu doon dunde moo tax yàlla xir xirtal ñu si loolu nga xam ne bu màggal ku bàyyi jotee daal duñu bëgg dara lépp lu ñu am rek dañ koy delloo ndax ki ko ki ko woote muy Cheikh Ahmadou Bamba ne sant leen ma yàlla ci ci loolu la doon ci taawanu alal birri wa taqwa wala taxaawanu alal ismi wala udwaan dimbalante si ragal yàlla ak mbaax te bañ a si bàkkaar ak ak ak ak ak ak ak ak defante lu ñaaw ndax alquraanu karim dafay wax ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun yàlla nee na du ngeen joxe li ngeen gën a bëgg ne rek da ngeen a am maanaam maanaam lan tanaalul birra hatta tunfiqu du ngeen mën a am ak mbaax ne da ngeen joxe li ngeen gën a bëgg il faut que li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko suñu borom doog leen a mën a may eh, maanaam maanaam li ngeen am daal. moo tax eh, ñuy fas yéene di jël eh, comme ni bu jotee li nga xamante ni moom la nit ñi gën a bëgg ñu jël ko séddale ko jàmm yàlla yi bokk kook ñoom te dara taxul nag ñu di ko def ngir jëmee suñu borom ak ak ak ak ak alxuraanu karim ak ak suñ tubaa suñ tubaa rek moo tax. wutuñu si titre wutuñu si ndam wutuñu ci dara lii sax xëy na daa mënta ñàkk ñu nekk ay wóola rek ngeen ñëw pour yaatal màggal gi waaye sax nekkul lu ñuy gënal ndax euh, euh, tàmmuñ ko si. Euh, mu mel ne comme ni ñu ko waxee léegi ñu ñu bari dañu faral di togg seen kër di génne ñii di yóbbu ci jumaa ñii di yóbbu feneen waaye ray nag tëral ci mbedd génne ko jox ko waa koñ bi. mu dem ci yenn quartier yi loolu ñu mel ñu mel ne Cheikh Cheikh Béthio yàlla ko yàlla yërëm ñoon lañ ko xamee woon Euh, tey ban message nga mën a lancer ñi nga xam ne tey euh, ñoom ñoo ñoo am doole mën a màggal te ñi néew doole ne fii ñu war leen jàppale. waaw boo gisee loolu fi mu nekk nii dimbal ni dimbal sax yomb na ni dimbal waaye nag doomu aadama yi comme ndimbal dafa mel ni daal fi mu jaadoo wala fi ñu ko war a def duñ ko def foofa ndax kenn ku nekk fa nga dëkk ki ki dend ak yow boo yeewoo di nga xam ni kii lii nii soxla na ko yitewoo na ko léegi nag jamono moo toll sax foo xamante ni ñu si bari xëy na dañuy tok japp ci njàmbur li nga leen di jox am nañ ko so leen ko joxe am nañ ko so leen ko joxut am nañ ko waye yaatal ci lo xamanteni ni cey nga yalla ak liggeel ci liggéeyal Sëriñ khadim Xaadimu ndax liggeel yalla ci jàmm yalla yi julli wor nat asaka joxe muram koor loolu ñepp ngi koy def nit ñangi julli ñun ñu ngi ñu ngi julli ñu ngi wor ñu ngi joxe asaka ñu ngi nat muram koor waye nak jàmm am aaju nga dimbali ko to yalla rek tax dafa ëpp doole jaamu yalla lepp lu meuna doon ndax ki julli julli gi yow rek la personné ki wor wor gi yow rek la personné waye dimbalé ngir yalla ak jëmi suñu borom bi tabaraka taala loolu dafa mag ba nga xamanteni ni jox nit euh, ben tip mu lek ba rek mo gënal tabaxal yalla juni kon nak ñun loolu dem nañ ba xam ko nekkon ay ndonga dara di yelwaan yag ci dara lool xam dara num demé xam nimbal motax tax yaa suñu borom xétal ñu ci rek tay luñu am dal dinañ ko bokk ak yalla yi ngir jëmi suñu tuba ak maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ni mooy suñu royuwaay ak suñu Mor Faasa Baaxum mi nga xamante ni mooy suñu sëriñ eh, ñu di ko wooyee suñu Mor Faasa borom léppay baax léegi sëtam bi fi nekk muy Abdul Ahad Baaxum mooy suñu sëriñ ñu ngi koy ñaanal di ko yàlla yaa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko ak wér suñu borom bi defal ko li mu lépp ak mbooleem njaboot gi nga xamante ni ñu topp si ginnaawam waaw jërëjëf sëñ sëñ Ismaïla ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu mel ne am amel nañ nga ñu interview bi ndax euh, ku ne xam ne ne yëfi internet télé du sa du say mbir waaye tey nga nanguñu ko nag ngir màggal gi lay sant bu baax di la gërëm bu ko defee ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk internet yi ñu ñu jox suñu suñu sëriñ daara moom tam mu jëkkati yi kàddu ah, ñu ngi ñu ngi nuyu mbooleem taalibe yi nag kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di sant euh, mbo di sant mbooleem gan ñi fii nga xam ne màggal si woon nañ di leen ñaanal yàlla teg leen si yoonu jàmm ñu delluwaat ci jàmm euh, ma leen di wax ni leen ñun amuñu lu may sëñ tubaa moo tax màggal ak Touba bu jotee buñ doon am junniy gan sax xeeb nañ ko ndax dañoo bëgg suñu borom bi tabaraka wa taala li ñuy defal yàlla bi nang ko te mënuñu ko jaar fenn lu may ci kii dénk waa réew mi jàmm yàlla na fi yàlla defa jàmm na fi yàlla saxal jàmm ci kër sëriñ ci ci politique bi ci lépp rek di ñaanal suñu yàlla may ko ak wér ba yan bi nga xam ne maanaam suñu borom bi yenn yenn na ko ko mu weef toll ci kawam ndax man xam naa ne ku bëgg la te man yàlla mi metti ak yonte bi seede na ne dama bëgg Sëñ tuba ci sama xol bi lool ba nga xamanteni ni mënuma ko ak lenn ak mam Cheikh Ibrahima Fall ndax ñooy suñu way ñoy suñu sëriñ ñoy suñu lépp même sax euh, ci tur yalla yi ñi yëngu duñ ci xootal sax waye dañuy wax ne am ci sax yenn euh, daraja wala martaba yo xamanteni tay bo ci doon yëngu ba war sa ag bo sa naree bo sa am tawféex tuba euh di nga gis Cheikh Ibra ndax man sama buntu ci turu yalla Cheikh Ibra ndax lama yalla won ba maymako bañ cey sante seigne touba si Cheikh Ibra la ko jaarale kon ñun mom amuñu lenn lu may sante seigne touba di sante mam Cheikh Ibrahima Fall di jox euh, seigne Omar mi nga xam ne nekkal si daara ji mu nuyo momit agale yenn yi xeyna nak wax mom dañ ko xewuta man waaye ñu ngi sante ñepp di leen gërëm di naan seigne touba bo ñu dimbali magal guñu nangu ak xewal gu bari barke Cheikh Ahmad Bamba di wax ne si kalam arju fi sirri wa fi alani bi aqi wajaka aqih li raja'an li ya rabbi kun li wa khud li birida kharadi wa mal tamastu bi ja'i muntaha anali salli wa sallim ala al-mukhtari fil kurama wa bashir an nabi nasmi afdar al-usuli barke borom tuba barke mam salam fal bismillahirrahmanirrahim yen bokk julit ni ñoo ngi leen ni wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw suñu kilifa suñu ismaïl kanji wax na ay kàddu yi rafet rafet ñoo ngi koy jaajëfal ci kàddu yi bu baax te xam ne noonu rek la mën a demee yàlla dogal la ñun ñoo ne ci daara ji kon dañ ciy wax tuuti rek ginnaaw ba ñuy ba bala ñuy wax ci daara ji dañuy wax tuuti rek ci jëfi sëñ Ismaïla Kañ gi nga xam ne yàlla dogal na yàgg nañu ko fekkee te xam ne sëñ Tuubaa ab liggéeyam lépp lépp lépp lii la woon maanaam defar nit muy jariñu di jariñe mën a jariñ boppam jariñ ay way waajuram jariñ aw askanam waaye jariñ am réewam te Ismaayla Kañ génnul foofu te doomi daara la sëñ Tuubaa loolu doongu doongu liggéeyam bépp ci kaw suuf si loolu kese kese la génnul lool defar nit ba nit ki mën a defaru ba jariñu loolu dong la woon te ab te Ismaïla Kandji ab yengom ne gennul lolu kon ñoo ngi ñaanal yalla nga xamne ne mo yar ñaan kuy ñaan mom ngay ñaan te moy nangu ñaan mu defal ko fa no gudd lolu and ak wer def ko ngepp julit yep yep yep rafal lu ko rek def ju rafal la def ju rafal la lol ndax suñu borom day wax ci alquran wa amma ma yanfa'u an-nas fi al dafa wax ne eh, ki ko ëppal njariñ ci kaw suus mooy ñi nga xam ne dañuy dimbale doomi aadama yi kooku mooy gën a mën a yàgg ci kaw suus te yàlla boo ko bëggee dimbale dëgg-dëgg da ko dimbale ci jaamam yi mooy ñi ñi nekk ci kaw suus ñooñu rek la am te yàlla lépp yàlla dafa nekk ci doomi aadama doomu aadama boo ko taxawoo rek bunt la boo xam ne si ne daal bu gaaw àgg bu gaaw jot ñu ngërëmal yàlla la ki nga jaarale ko ci doomu aadama ndax dafa bëgg loolu kuy taxaw doomu aadama mooy li ma wax sànq sëñ Touba ba muy ba muy ñëw ci kaw suus defar nit ba mu baax rek moo ko yittile woon ak foo mën a baaxee nit it lu baax it fu ko nit mën a amee muy lu baax noonu la ko sëñ Touba bëggee. ci wàllu daara ji moom daara fii ci Touba moom. kuwe ku wesam ku ne li si jital mooy yermande li nga si njëkk jiital mooy eh, jàppalente ak doomu aadama yi moom nga si jital ba paradox si dugg boo si jiitalee ya nag dañ ciy wane ak bëgg waaye wane ci fulla ak fayda ba jital enak, lor loolu rek keneen ku la si fekk si dana ànd ak yow ci bu andu ak yow ci yool ci yow yaa koy teel a xamal ne lii ma mën a am ndax liggéey bi doonul li ñuy fayoo ko li ñuy li ñuy joxe maanaam ak ak neexal la doon rek neexal la waaw neexal la rek danañ joxe dara bu yaru dee waaye loolu tudd ak fay neexal la moo tax képp ku ci yor sa doom li nga war a gën a yittewoo mooy di nemmeeku sëñ daar ba foo tollu nga di ko màggal donte foo jeek moom loo am war nga yëkkati jox ko bañ a yem ci moom ak fay ndax xam ne li lay defal ci sa doom kenn mënu mënu ko coowatu la ma koy la ma ci defal lu rëy la amoo fayam kon noon donc ñoom noonu la mën a doxalee ak ñoom si ñoom ñun ñu ñi xam ne ñooy jàngal alxuraan ñu jàppale leen ci bu baax ci seen doom yi ñu xam dara waaye ñoom it ñu jàpp si ñun ñoo wàll yar bi ak alxuraan ji ñun la war.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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر